sallallahu alayhi wa sallam euh, di ñaan yàlla nañ ko fekkee yu baree bare bari yàlla nañ yàlla nangul suñu koor nangul suñu jëf yu baax yi ñu ciy def yëpp ci barke yonent bi bàyyi sëriñ asan ñu ngi leen nuyu bu baax di la ziyaara di la ñaanal nga yàgg fi te wér ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam euh, kàddu yi kàddu yi ubbil imaam Alpha Bala euh, sa njaboot ñoom ñoo ñëw tey ci sa kanam waaye ci seen njiit njiital sëriñ Alsaan Ñaana Seck chef de village ndax ñi toog mooy chef de village yi nekk Canaba Seck euh, yàlla dafa def jamono bi fi suñu waajur bàyyi sëriñ Abdou Rahim nekkee dafa fekkoon Canaba nekk ñeenti karce bàyyi sëriñ abdu ca jisif bu yaatu ba ca xalaat bu rafet ba euh, waxtaan ak sëriñ Alsaan Ñaana Seck ak kilifa yi mu ko seqal joxe ndigal ngir ñu gën a saytu dëkk bi ngir tamit ñu gën a yaatal dëkk bi ñu yokk dëkk bi def ko ay karce ba mu mat fukk ak ñaar kon Baye Abdou yàlla na yàlla fay ko ci xalaat bu rafet boobu euh, fukki quartier ñaar yooyu nag ñoom ñoo ñëw toog ci sa kanam euh, quartier quartier yi la ca gën a la ca nekkaat ab secret boo xam ne Baye Abdou defaat na ko ca dafa jël turu quartier yëpp delloowaat ko mag ji ndax bu ñu waxee ni Baye Ngoussane Fall mu ngi fi teew teewal fi quartier maam Ibra Penda Seck kon loolu cër bu ñu delloo ca mag ña la waaye Baye Mortala Seck Baye Mortala Dieng mu ngi fi teew moom tamit teewal fi quartier maam ma dikke Seck euh, loolu xalaat la sëriñ ab du fay moom tamit teewal quartier maam Momar Talla Seck Baye Serigne Ousseynou Ñing moom teewal quartier Serigne Ibrahima Seck Serigne euh, Amadou Mboub teewal fi quartier Cheikhna Ahmed Tidiane Chérif euh, Serigne Cheikhou tambedu teewal fi quartier Mame Daour Diop euh, Serigne mbay Diène teewal fi quartier Mame Ndioba Tall Serigne Alsane Seck Serigne Daouda Seck bu Serigne Maodo sek moom tamit moom la Serigne Maodo teg ca quartier Kër Baay Mbay Seck euh, Serigne xalifa Sarr nga xam ne tey dafa génn waaye man maa ko fi teewal teewal fi quartier Tafsir Maam Mor Gueye euh, quartier Maam Boubou Seck euh, Serigne baay Diop Seck moom moo ko jiite Serigne Maanta mu ngi ci mbooloo mi su ma fàttewul benn quartier quartier Wuro Madiou xam naa jige la Serigne Imam Alpha Ba Euh, moom mi ma jege moom laa lim ñëpp bàyyi ko moom moo jiite quartier Wuro Madiou ndokk ba ñu mujjee turu Wuro Madiou mu yóbbaale géew ñëpp ndax loolu histoire la te yaakaar naa ni ñu toog mën nañ cee wax lu yaatu quartier sama baay sama waajur imaam Mor Ñang nga xam ni Baay Bamba Ñang mii moom moo ko jiite euh, boo gisee ma lim quartier yi benn par benn dama bëgg ñu dégg ci li ci mag ñi li ci mag ñi dëxëñ lañ ci dëxëñ waaw kon dañuy dellu jaajëfal mag ñi nga xam ne ñooñu tànnal loolu waaye barke bi nekk ci ñooñu ñu tuddee quartier yi yàlla na wàcc ci quartier yi ci barke Seydina Mohamed wàcc ci njaboot gi nekk foofu njaboot googu nag ci njiital seen seen chef de village muy sëriñ Alsaan Ñaana Seck euh, lii moom moo ci ànd ak ñoom moo ko jiite moo ko coiffé waaye dañoo dem ba dajale suukar si bay dem bay jóg am lu taxaw loo xam ni faw mu dem ca te bu ca demee canaba la ca demal mu daal di jël lépp bàyyi ko ci loxool ki lépp nekkoon ci moom mooy imam Alpha Ba mii mu jiite délégation bi euh, soxna yeeg ndaw ñeek mag ñi ci quartier yi ñoom ñëpp ñëw nañ toog ci sa kanam dajale seeni déem ak seeni i daxaar ñëw bëgg koo barkeeloo ci weeru koor bi jox ko su jox suukar bàyyi seexu canaba mu ñaanal leen ndax canaba gën a euh, naat canaba gën a gën dox waaye tamit seenu jàmmu yàlla nga ñaanal leen yàlla dangul leen ko ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa ñu ngi nuyu nag suñu kilifa euh, giñ fi fekk muy El Hadj Pape Mor di xalifa tafsir Maam Mor Gueye bayaas léegi bi ngay wax ci sedde ci moom maa ngi lay seddeel ñun njabootu tafsir Maam Mor Gueye nit ñun ñoo ko njëkk gërëm ñoo ko njëkk a gërëm taxawaay yi maam amee woon ak baay amee woon ko ni nga ko waxee noonu la nga demee dafa mat sëkk te moom fierté famille bi la fierté Kër Baye Talla Gueye la suñu fierté la waxoon naa ko fii ci benn jamono ma ni Canaba penc mii ku nekk taxawaay yi nga ci war a am jërta buuxante jërta xëccoo na ku nekk àggale li sa baay doon def moom Baye Tafsir Pape Mor Gueye mii li Baye Talla Gueye doon def ci pencum Canaba loolu lay àggale yàlla na fi yàgg te wér ci barke Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wasallam loolu dama ko cee dugal rek ndax mu ngi toog te moom mooy suñu kilifa mooy suñu mbaay Talla Gueye mooy suñu maam Mor Gueye waaw di dëkk ci ay loxo tam di ñaan di ko di ko di sàkku ci moom ñaan mu ñaanal ñu yàlla na yàlla barkeel ci barke Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wasallam kon kaddu gi mu ngi dem ci bàyyi imaam Alpha Ba bu ko defee mu àggalee kaddu yi imaam Serigne Ñaana Seck. sant yàlla bu baax. nee ñu ngi sant yàlla bu baax. ci yonent bi sallallahu alayhi di ziyaare jotaay bi. ziyaare nag jotaay bi yëpp. di ziyaare kilifa ak jotaay bi. di ziyaare kilifa ak jotaay bi. muy bàyyi Cheikhou Canaba. muy Alxasan Seck. sëriñ Alxasan Seck. yal na ko fi yàlla bàyyi. yàlla na ko fi yàlla bàyyi. yàggal ko fi lool. yàlla yàggal ko fi lool. Uh, te may ko ak wér. te yàlla may ko ak wér. may ko njaboot gépp. may ko njaboot gépp. ba naal yi nga xam ni moom la naal. ba yi nga xam ni moom la naal. yépp yépp rek yàlla lewetal ko yàlla na ko yàlla lewetal yàlla woyofal ko yàlla na yàlla woyofal ko yàlla seral ko yàlla na yàlla seral ko yàlla mottali ko yàlla na ko yàlla mottali ñun ñëpp ñu bëgg ci kontaan ñun ñëpp ñu bëgg ci kontaan euh, di nuyu ñi fi teew ñëpp waaye nuyu ñi fi teew ñëpp bu dee quartier bu dee quartier yi euh, sama sang bi ci sama ginnaaw sama sang bi ci sama ginnaaw lim na leen lim na leen bu dee kilifa yi ñi nga xamante ni ñoo ko jiite bu dee kilifa yi ko jiite lim na leen lim na leen kon mën naa mën naa mën naa cee bañ a jaaraat sax kon nag loolu moom mën naa cee bañ a jaaraat di jël temps bu gudd di jël temps bu gudd waaye bàyyi sëñ bi waaye bàyyi sëñ bi sag njaboot sag njaboot ñoo ñëw ziyaar si la ñoo ñëw ziyaar si la ki waroon a jiitu ki ci waroon a jiitu nag te waroon a yor kaddu gi te waroon a yor kaddu gi te bu ko yoree te bu ko yoree dina ko taaral dina ko taaral dina ko rafetal dina ko rafetal dina ko matal sëkk dina ko matal sëkk muy sëriñ Alassane Niane muy sëriñ Alassane Niane waaye nag waaye nag fee mu dem itam fee mu demit yow la fa demal yow la fa demal kon kon bu yablee kon bu yablee ñi ñëw rek ñi ñëw rek euh, na na ñu xam ni ñii la yabal ñu xam ni ñii rek la yabal waaye kàddoom moom waaye kàddoom moom kàddoom la moom moom kàddoom la ni mu koy génnee ni koy génnee ak ni mu ciy waxe ak ni mu ciy waxe moom moo koy man moom moo koy man waaye nun nag waaye nun nag dan lay xamal rek dan lay xamal ni sag njaboot ñi ngi nii ni sag njaboot a ngi nii ñi doon présenté léegi ñii doon présenté léegi ñi ñu doon présenté léegi ñi ñu doon présenté léegi muy chef de quartier yi muy chef de quartier yi te boo ci jëlee ku mel ni Serigne Ngoussane Fall te boo ci jëlee ku mel ni Baye Ngoussane Fall euh, jël ci ku mel ni Serigne Amadou Mbuub jël ci ku mel ni Baye Ahmadou jël ci ku mel ni Serigne Bamba Ñang jël ci ku mel ni Serigne Bamba Ñang jël ci ku mel ni Serigne Mor Jeng jël ci ku mel ni Serigne Mor rawati nag fan yi nga xam nag mooy fan yu mujj yi nga xam ni bis bi gën ci bés yi nga xam ni bis bi gën ci bis yi wala guddi gi gën ci guddi yi wala guddi gi gën ci guddi yi buñ koy seet ci biiram lañ koy seet buñ koy seet ci fukki fan yu mujj yi ci lañ koy seet yàlla nañ dajeeg moom yàlla nañu dajeeg moom wax amin waaye képp ku dajeeg moom waaye képp ku dajeeg moom daje nga guddi goo xam ne daje nga guddi goo xam ne moo gën juróom-ñett fukki at ak ñett moo gën juróom-ñetti fukki at ak ñett nga dund ko di ko jaamu yàlla nga dund ko di ko jaamu yàlla jaamu yàlla nga dina ko nangu jaamu yàlla yàlla dina ko nangu moo mooy gën a mooy guddi googu mooy gën a eh, at ki dund ci at yooyu guddi googu moo gën dund ci at yooyu yëpp nag juróom-ñett fukki at juróom-ñett fukki at ak ñeent ak ñeent yu tegal ñaari weer yu tegal ñaari weer kon kon. Euh, yàlla na nu yàlla dëppale ak moom yàlla na nu yàlla dëppale guddi gi. ñii ñëw nag. ñii ñëw nag. lii ñu andi. lii ñu indi te te mooy suukaru koor. te mooy suukaru koor. nga xam ni moom faratal la ci ñoom. nga xam ni faratal a ci ñoom. ñu indil seen suukaru score. ñu andi seen suukaru score. seen kilifa. seen kilifa. te mooy Serigne Alxasan Seck. te mooy Serigne Alxasan Seck. dëkk bi yëpp la ko andil. dëkk bi yëpp la ko andil. sa njaboot gépp la ko andil. sa njaboot gépp la ko kenn ku ci nekk. kenn ku ci ne. bàyyi nga ci say déem. bàyyi nga ci say déem. bàyyi nga ci say daqaar. bàyyi ci say daqaar. pour barkeelu. pour barkeelu. ci seexu canaba. ci seexu canaba. barkeelu. barkeelu. ci Baye Assane. ci Baye Xasan. barkeelu. barkeelu. ci xadara bi. ci xadara bi waaye barkeelu. waaye barkeelu. ci ci diina ji loolu moo tax ñoom ñëpp loolu moo tax ñoom ñëpp ñu ñu dajale lii ñu dajale lii xeeb ko lool xeeb ko lool waaye nag naw ko lool waaye naw ko lool ndax mbir la moo xam ne ci xol la jóge mbir la moo xam ne daa jóge ci xol ñi ko ñi ko def ñëpp kenn ku ci nekk ñi ko def ñëpp kenn kum ci ci sa xol nga jëlee ci sa xol nga jëlee lii nga def nii lii nga def nii jëmee ko ci sa kilifa jëmee ko ci sa kilifa muy Baye Assane muy Baye Serigne Assane kon kon yàlla na la fi yàlla yàggal Baye Assane yàlla na la fi yàlla yàggal lii ñu yàgg yàlla na lañ ko yàgg eh, jox lii yàlla nañ la ko yàgg jox si fii jigéen ñii nga gis ñu ànd ak ñoom soxna yu tedd yi ñu àndal ñoom ñooy armée eh, eh, Ahmadou Mboub Mële. ñooy armée Baye Ahmadou Mboub Mële. wala ci armée Baye Ahmadou Mboub wala boog ci armée Baye Ahmadou Mboub lañ bokk. yal na yàlla guddal seen fan ñoom itam. yal na yàlla guddal seen fan. yal na yàlla wéral seeni i cër. yàlla wéral seeni i cër. Euh, ci biir suukar si itam. ci biir suukar si. am na am na loo xam ne. am na loo xam ne. dañ koo dajale. dañ koo dajale. pour ñu fi jógee. pour bu nu fi jógee. àgg ca imaam ya. àgg ca imaam ya. jox leen seen wàll. jox leen seen wàll. Euh, waa baytu rahmati. waa baytu rahmati. waa zikrullah. waa zikrullah. ñoom it ñu jox leen seen wàll. ñoom it jox leen seen wàll. bilaal yi. pilaal yi. ñoom itam ñoom it. ñu jox leen seen ñu jox leen seen wàll. loolu yëpp nag loolu yëpp nag. dañ koy def rek dañ koy def rek. ngir barkeelu ngir barkeelu. ci barkeb Seexu Canam. yal na yàlla guddal fan yi yal na yàlla guddal fan yi. yal na yàlla wéral cër yi na wéral cër yi. yal na yàlla dooli laa sàmm yàlla dooli laa sàmm. dooli laa dimbali. bi jaahi rasulillah. suukar si suukar saa ngi noonu. yal yàlla baaxal te barkeel yal baaxal te barkeel. ñu ngi gërëm ñëpp gërëm nañu ñëpp. di sant ñëpp sant nañu ñëpp. di ñaanal ñëpp ñaanal ñëpp. suñuy xol sedd na suñuy xol sedd na. kii toog nii kii toog nii sama sang la sama sang la. muy Serigne moor Gueye. muy El Hadj Pape Mor Gueye. ci kër ci kër ci kër euh, Serigne Mor Gueye. ci kër Serigne Mor Gueye. Tafsir moor Gueye. Tafsir Mam Mor Gueye. mooy sunub xalifa. mooy sunub xalifa. pour tënk sunug bokk. pour tënk sunug bokk. ñetti ñi bokk ak sama yaay. ñetti ñi bokk ak sama yaay. jenn ndey. jenn ndey. ak Serigne moor Gueye. ak Serigne Mor Gueye. Alioune Gueye. Oustaz Alioune Gueye. Abdoul Karim Gueye. Abdoul Karim Gueye. ak ñu ko bokkal ñu ko bokkal. ñoo bokk benn baay. ñoo benn baay. kon moom mi. kon moom. sama sang la sab sang la. mbubb mu sol. man la ko war man la ko war a jox. asalaamaaleykum asalaamaaleykum wa rahmatulah mi ngi gërëm nag jotaay bi ci rafet gi mu rafet ci rafet gi mu rafet waaye maa ngi xam le ni daal waaye maa ngi xam le ni daal Thiénaba gii Thiénaba gii mooy sekkareb réew mi mooy sekkareb réew mi penc mii mooy secret tarixa tijaan yi mooy secret tarixa tijaan yi ëtt bii ëtt bii. mooy sekkarab canaba. mooy sekkarab canaba. maa ngi leen di xamal ni daal. maa ngi leen di xamal ni daal. seen ñaq wi ngeen boole. seen ñaq wi ngeen boole. indi ko fii. indi ko fii. li ngeen ci bëgg. li ngeen ci bëgg. yàlla dina leen ko may. yàlla dina leen ko may wax leen alhamdulilah. yàlla. ndax yàlla. dafa gore. yàlla daa gore. te yàlla dafa maandu. te yàlla dafa maandu. yàlla yàlla dafa bari dafa bari li muy fekk ab jaam li muy fekk ab jaam ci pas-pasam ci pas-pasam ak yéeneem ak yéeneem akuk dogoom akuk dogoom loolu mooy dëgg bi loolooy dëgg waaye maa ngi leen di xamal ni daal waaye daal maa ngi leen di xamal ni def ngeen li ngeen war a def yéen daal def ngeen li ngeen war a def waaye yàlla ak a maandu waaye yàlla ak maandu yàllaa ko gore yàllaa ko gore yàllaa ko sell yàllaa ko sell man de man de fi ma jaar fi ma jaar ba arrivé ba arrivé laquma ko laquma ko nëbbuma ko nëbbuma ko dencuma ko dencuma ko dama koy wax dama koy wax ñëpp di ko dégg ñëpp di ko dégg lu ma mës a liggéey lu ma mës a liggéey ci loxoy nitu yàlla laa ko teg ci loxoy nitu yàlla laa ko teg man man lu ma mës a liggéey lu ma mësa liggéey dama koo terale nitu yàlla dama koo terale nitu yàlla ba pare ba pare yalwaan dunde yalwaan di dunde ba ma jàpp ne sax ba ma jàpp ni loolee ma daa def loolee ma daa def moo ma jox chaise bii moo ma jox chaise bii lu ma mës liggéey lu ma mës a liggéey rek nitu yàlla laa koy yët nitu yàlla laa koy ba pare ba pare sukk sukk nag tàllal sama loxo tàllal ko saay loxo waaye maa ngi leen di xamal ne teraanga ji waaye maa ngi leen di xamal ne ji du ko dunde du ma ko dunde teraanga ji. teraanga ji daal. lekkaguma ko de. lekkaguma ko. lépp lu ngeen teg ci sama loxo. lépp lu ngeen teg ci sama loxo. ak nu mu mën a toll. ak nu mu mën a toll. bu dee ceeb. bu dee ceeb. muy suukar. muy suukar. lu mu mën a doon lu da ngeen teg seen bët. di ngeen teg seen bët. ma séddale ko njabootu Amari Ndaak gépp. ma séddale ko njabootu maam Ahmadou Ndaak Seck gépp. daaw. daaw. séddale naa fi ñetti tonn. seddale naa fi ñetti ton te ren manqué naa suukar. te ren manqué naa suukar. dama bëgg daal. damaa bëgg daal. lu fi taalibe bi indi. lu fi taalibe bi indi. ak fu mu mën a jóge. ak fu mu mën a jóge. sët yi sa Amari Ndaak yii. sët yi maam yii. danañu teg seen bët. danañ teg seen bët. ma seddale ko ba mu mat. ma seddale ko ba mu mat. ndax man. ndax nag man. man sama boroom sama borom. damaa teel a dimbali. damaa teel a dimbali. bàkkuwuma bàkkuwuma billaahi damuwuma billaahi damuwuma damay sant saabu damay sant yàlla doom man bi may gone bu góor bi may gone gu góor sama àdduna lépp sama àdduna lépp dama koo sànq dama koo sànq ci gësturu yàlla ci gëstu turu yàlla fexe koo xam fexe koo xam loolu laa def loolu dong laa def nag ba sama borom may na ma. ba yàlla may na ma. gànnaay yi tarixa ya gànnaay yi tarixa tijaaniya. gàddu naa. gàddu naa. ba sama bëgg fees. ba sama bëgg fees. wax naa dëgg. wax naa dëgg de am kay. billahi wax na dëgg ak kay dëgg. gàddu googu. nee na gàddu googu nag. li ma koy gàddu gàddu. li ma koy gàddu gàddu. maa ka lewet. maa ka lewet. maa rafetub xol. maa rafetub xol. man sama xol bi. sama xol bii. ni ma bëgg yàlla defe ma ko ni. ni ma bëgg yàlla defe ma ko ni. def na ko ba mu def na ba mat nag. maa ko am yërmande. ak ma am yërmande. maa ko rafetu xol. maa ko rafetu xol. billahi maa tabe. billahi maa tabe. bakkuwuma. bakkuwuma. damay sant sama borom damay sant yàlla rek. man sama borom jox na ma dog. yàlla man sama jox na ma dog. su ko sikkaree ba àggal. su ko sikkaree ba àggal. sama dépasse. sama dépasse. fekk ma fii ma toog. fekk ma fii ma toog. du rës du rës lu ma ca jëlee rek lu ma ci jële rek saa borom rempli saa borom rempli ko nag loolu wax naa dëgg de parce que dëgg muy dëgg man li Amary Ndaak moom li maam Amary Ndaak sekk moom danaa cam maandu danaa ca maandu ba séddale ko sëtam yi ba séddale ko sëtam yi du ma ko càmmuñu mukk du ma ko ñu mukk kon borom dimbali na ma yàlla dimbali na ma ci loolu bu dee ci wàllu suuf bu dee ci wàllu suuf ci biir réew mi ci biir réew mi am naa fi fukki kër ak yent am naa fi fukki kër ak ñeent barke salaatul fatiha barke salaatul fatiha kër gu mu ci doon kër gu mu ci doon dafa uuf goudron daa uuf goudron wala mu uuf am ndox wala mu uuf am ndox ci territoire bi lépp ci territoire bi yëpp ndar ndar moo gën a jafe moo gën a jafe moo gën a seer moo gën a seer am naa fa juróomi kër am naa fa juróomi kër yu ma lew yu ma lew man man daal damaa war a gore ci suuf damaa war a gore nag ci suuf man damaa war a maandu. damaa war a maandu. man damaa war a maandu. damaa war a maandu. ci xilaafa gii. ci xilaafa gii. dama cee war a maandu. dama cee war a maandu. baroo ci sama baay. baroo ci sama baay. te xaw ma lu ma yàlla yàllay may. te xaw ma lu ma yàllay may. si bu jéego boobu laa seq. jéego boobu doo laay seq de. fas naa ko yéene. cëy. man de fas naa yéene. loolu daal la góor gi fas yéene moom. tariqa bi tariqa bi daal du ma ci yóbbaale jam-jam du ma ci yóbbaale jam-jam man sama baay saa baay góor gu mag góor gu mag ci laay jël référence ci laay jël référence billaahi moom laay roy sama baay laay roy billaahi góor gu mag laa def nawle góor gu mag laa def nawle moom la roy ci wàllu jikko moom laay roy ci wàllu jikko bala ma ca man bala ma ca man moom laay roy ci jom moom laay roy ci jom moom laay roy ci ngor moom laay roy ci ngor moom laay roy ci sell moom laay roy ci sell ba ma ca mën a yem ma ca am yem. la ca des la ca des. man ne yàlla pardon. ma ne yàlla pardon waaw bu jaar nag. ndeysaan dëgg la de. suukar si nee na suukar si nag. sëriñ Mountakha indil fukki saako. sëriñ Mountakha Bachir Mbacke yàlla na fi yàgg te wér dafa ma indil fukki saako. ma teg ko fee. ma teg ko fee. bëgg leneen lu mu doon. bëgg leneen lu mu doon. ma séddale ko nit ñi. ma séddale ko nit ñi. commencé nañu séddale bi. commencé nañu séddale bi. damaa bëgg ñu dem. damaa bëgg ñu dem. ba fa mu yem. ba fa mu yem. man daal man daal man daal Pape Mor. dana bàyyi Mor Gueye. man daal damaa ragal defet. man daal dama defet day baax. damaa ragal defet yàlla bu ñu defet. defet. doo ko am. man damaa ragal defet. bàyyi as doo ko allah. ak jam-jamub sariya. ak jom jamub jam-jamub sariya. koo ragal ñaar yooyu de jar naa ragal. jëf sekk mbirum tool yi. ne mbirum tool yi. changement am na ci. changement am na ci. dama cee waroo woon. dama cee waroo woon. ak maire bi. ak maire bi. léegi déggoo nañu. léegi nag déggoo nañu alhamdulilah. daf ko bëggoon a yor. daf koo bëggoon a yor. ci baatub nguur. ci baatub nguur. ak dogal ak dogal. te ma bëgg mu yor ko. te ma bëggoon mu yor ko rek. ci ormay seexu canaba. ci ormay seexu canaba. ak ndigal ak ndigal. foofu la ñu waroo. foofu rek la ñu waroo woon. moo waral. moo waral. kàngamloo bi yàgg. kàngam bi yàgg. ma fab suuf si. ma fab suuf si. bàyyi ko ci loxo commission bi. bàyyi ko ci loxo commission bi. te fekk tam yàqu-yàqu bi ci cana ba. te fekk nag yàqu-yàqu bi ci cana ba. rëy rëy ba lëj. ba ba kenn mënu koo lijjanti. ba kenn mënu koo lijjanti. commission boobu. commission boobu nag. jox naa leen cent baat. jox naa leen cent baat. waaye amuñu gànnaay. waaye amuñu gànnaay. gu nu mën a wàññee kenn. gu nu mën a wàññee kenn. loolu moo nu tee mën a dox. loolu moo nu tee mën a dox. te lii te lii mënee su ko réglé mënee su ko réglé te doo sukkandiku te doo sukkandiku nag ci baatum nguur ci baatum nguur moo tax ma ne Talla moo tax ma ne monsieur le maire Talla damaa bëgg damaa bëgg nga jàppale ma nga jàppale ma ci ci ci ci euh, baatum ci sañ-sañu nguur ci sañ-sañu nguur te jàppale ma te jàppale ma ci warma bi ci war ma ji nga ŋàbb ko nga ŋàbb ko nag waaye bul bul jaasi ji jaasi ji bul dog bul dog loolu loolu moo taxoon suñ diggante moo taxoon suñ diggante mu bëggee ko ne mu bëggee ko ne ma bëggee ko ne ma nii rek dem na nañu ba yàgg dem nañu ba yàgg nag mu dellu si mu dellu si toog ci chaise bi toog ci chaise bi ni ma sëñ bi ni ma sëñ bi ma ne ko sec ma ne ko sec mun ma loo xalaat mun ma loo xalaat fekk naa la ci fekk si naa la ci ma ne ko li ma bëgg mooy ma ne ko li ma bëgg daal mooy kenn ku ne kenn ku ne toolam toolam soo ci àggee soo ci àggee taxawal ak moom ca digg ba. taxawal ak moom ca digg ba. àq ja àq ja. namat namat. àq ji àq kooka. àq àqi tool bi àqi borom tool ba. namat sëkk namat sëkk. bu ca dara des ca dara des. koo xam ne kii nag. koo xam ne nag. dangaa jaar ca suuf. da ngaa jaar ca suuf. jaay jaay. seetal foo dox ak moom seetal foo dox ak moom. suuf si jaay luwul. suuf si jaay luwul. commencé nañu liggéey tey. commencé nañu liggéey tey. waaye yéen village yi. waaye yéen chef de village yi. dalal leen seen xel. dalal leen seen xel. cër yi cër yi. kenn du ko faat. kenn du ko faat. te ma defi ne te ma ne fi. bàyyi naa ko bàyyi naa ko mu commencé liggéey mu commencé liggéey waaye rafetal leen seen i njort rafetal leen seen nag ndax damaa fab sama njabootu bopp damaa fab sama njabootu bopp samay doom samay doom tofal ko tofal ko te mun leen kenn leen a nax. te kenn mun leen a nax. taala itam. taala yi nag. dogu na dogu na nag. damaa bëgg a liggéeyal seexu canaba. ne bëgg a liggéeyal seexu ma fekki ko ma fekki ko. kon nañ ko bàyyi. kon nañ ko bàyyi nag. mu liggéey mu liggéey. te ngeen rafetal. te ngeen rafetal. seen i njor seen i njor. dara du yàqu dara du yàqu incha allah. jërëjëf Seck macha allah mat na Seck. baarkalla yàlla yàlla guddal fanam Seck barki yàlla. soxna yi soxna yi jërë ngeen bàyyi na balaa ñaan ne soxna yi nag faaw mu jaajëfal leen wóom yi ngeen sukk fii nee na seen woom yi ngeen sukk fii yàlla bu mu leen wor yàlla bu mu leen wor seen ñaq wi ngeen indi seen ñaq wi ngeen indi ah, waaye sama baay Cheikh wax na ko de nee na sama baay maam na ko de nee na ñaq nee na ñaq du war borom du war borom oh ñaq du war kenn ñaq du borom mukk ci këru àdduna di nga dem ci ñaan di nga dem ci ñaan ba yàgg ba yàgg nga àgg ci doomu soxna nga àgg ci doomu soxna wax ko wax ko ñaan gi mu ni la mu ni la ñaan gii ñaan gi li muy nangu li muy nangu kii ngay ñaanlu kii ngay ñaanlu ñaqu ndeyam ñaqu ndeyam na ci jël indi na ci jël indi dugal ci weexal gi dugal ci weexal gi ñaan nga dox ñaan nga dox looloo tax looloo tax joxe sa ñaq joxe sa ñaq baax baax na lool baax na de baax na lool nag am na bàkkaar yoo xam ne am na sax bàkkaar yoo xam ne mënoo koo tuub mënoo koo mënoo koo julli mënoo koo julli mënoo koo woor mënoo ko woor mono ko sàkk mënoo ko sàkkal asaka mënoo ko sàkk sarax mënoo ko sàkkal sarax mënoo ko salaatu ala mënoo ko salaatu ala nabi mënoo ko waqaf alxuraan mënoo ko waqaf alxuraan bàkkaar boobu boobu day diis ci sa kaw maqaama day diis ci sa kaw maqaama ba doo ko attan ba doo ko attan dara du ko faj ci àdduna dara du ko faj ci àdduna du nga fab sa ñaq nga fab sa ñaq jox ko nitu yàlla yàlla Ah, am na doole. Hmm? damaa toog ci Thiénaba Gossas. damaa toog Thiénaba Gossas. ba yàgg benn xale. ba yàgg benn xale. ñëw toog fii. ñëw toog fii. ni ma sëñ Assane. ni ma sëñ Assane. yaay sëñ Assane Seck. ma ne ko maa ngi. ma ne ko maa nii. mu daal di làmb poosam. mu làmb poosam. daal di génne kayit wu ñu laxas. yé génne kayit wu ñu laxas. ni ma lii de ab sarax la. ni ma lii ab sarax la de. ma daal di fab sarax bi. ma fab sarax bi. li mbay sekk da fekkee na ko nee na sëñ Mbaye Seck doomu fekk na ko ma teg nii sarax bi ma teg nii sarax bi di waxtaan ak nit ñi di waxtaan ak nit ñi toogaay bi yàgg toogaay bi yàgg xale bi ni ma xale bi ni ma seetagoo sarax bi de seetagoo sarax bi de ma ne ko teema koo seet ma ne ko teema koo seet mun ma seetal mun ma seetal ma daa koy teqal ma laqar ci ko ni ko lii di sunguf la ni ko lii sunguf la mun ma waaw mun ma waaw ma ne ko sunguf lu mu ma ne ko sunguf lu mu mun ma sunguf wurus mun ma sunguf wurus ma ne ko foo dëkk ma ne ko foo dëkk mun ma noo ngi toog ci kaw frontière bi sama kër baay mun ma sama kër baay ñu ngi toog ci kaw frontière mi ngi ci frontière bi ba euh, ñami banjul la ñuy dund ñami banjul la ñuy dund ma nga jógee Saalum ma ne ko nga jógee Saalum ba Saalum jeex ba Saalum jeex nga dugg siin nga dugg siin juróom benn kilomètre juróom benn kilomètre ñëw cana ba ñëw cana ba Gossas jox ma sarax bi jox ma sarax bi mu waaw mu ne waaw ma ne ko luy loolu ma ne ko luy loolu <laughs> yàlla mu ne ma man de Sëñ Asan mu ne ma man de Sëñ sama sëriñ sama sëriñ ma ne ko ah. ma ne ko ah. munoo du wax lu amul. munuma du wax lu amul. ma ne ko yow yow mii kat yow ndax maa la gënub sëriñ wóorul de. waaw ah, yow ndax maa la gënub sëriñ wóorul de. sa sëriñ bi baax na de. sa sëriñ bi baax na de. ma ne ko lum la wax. ma ne ko lum la wax. mooy daf ma ni sarax bii. mu daf ma ni sarax bii. bul dellu si fii. bul dellu si fii. di ma ñaanloo. di ma ñaanloo. te sakkoo saraxu wurusam. te sakkoo saraxu wurusam. munumaa jënd lam. munumaa jënd lam. munumaa jënd jaaro. munumaa jënd jaaro. ma wut sunguf bi. ma wut sunguf bi. def ko sarax bi def ko sarax bi. ma ne ko lum la ci wax. ma ne ko lum la ci wax. mu def ma ni. def ma ni. sarax bii. sarax bi jox ko wàllu jox ko wàllu yi. ma ne ko ah. ma ko ah. wàllu yi. wàllu waaw. mu ni waaw. ma ko solo sa dàll yi. ma ne ko solo sa dàll yi. te yokku jéego. te yokk jéego. lii nga wax wóoru ma de. lii nga wax de. mun ma waaye mbaa. mun ma waaye mbaa. ma ne ko ma ne ko mbaalan. mu ne ku wàllu yu jur. mu ne ku wàllu yu jur. ma ne ko indi ma ko indi. sarax bi maa ko boobu. sarax bi kon fa ma sarax. man ma xam naa ko. man ma xam naa ko. man ma ne ko noo ko xamee. ma ne ko noo ko xamee. mu ne ma ma may seetal. mu ne ma may seetal. sëriñ euh, sant Saalum yëpp. sëriñ sant Saalum yëpp. ndaw ak ndaw daraameek daraameek. sekk ak sekk da ko boole. yëpp da koo boole. benn xale bu dëkk Fass koofe benn xale bu dëkk fas koofe di sama xarit. di sama xarit. noo ànd toog. noo ànd toog. mu ne ko. mu ne ko. seet gi. seet gi. def ci sëñ Assane Seck sama sama doomi sëriñ. def ci sën sëñ Assane Seck sama doomi sëriñ. mu xool seet gi. mu xool seet gi. ni Assane Seck mii moo ko. ni sëñ Assane Seck gi mii moo ko. keroog nag. keroog nag. bàkk naa góor gu mag. bàkk naa góor gu mag. bajooy jooy. ba jooy. keroog. keroog. bàkk naa góor gu mag bàkk naa góor gu mag di ko tagg di ko tagg ba samay rangoñ génn bay sama rangoñ di génn ah jar na ko de keroog way naa góor gu mag nee na keroog way naa góor gu mag keroog keroog way naa keroog way naa keroog way damaa am as naqar damaa am as naqar loolu moom yàggul loolu yàggul fanaanoo ko fanaanoo ko ba ca guddi ba guddi gént gi ñëw. gént gi ñëw. jël ma. jël ma. yóbbu ci bàmmeelu Amari Ndaak. yóbbu ci bàmmeelu maam Amari Ndaak. keroog laa xam ne góor Amari Ndaak du morom. laa xam ne maam Amari Ndaak sekk du morom. billaahi. billaahi. ndax bi may dem. ndax bi may dem. maa ngi jaar ci wetu bàmmeelu ba ma yeewoo ci bi ma yeewoo ci gént gi bi ma yeewoo ci gént ndax ndax gént gi dafa maa yóbbu ma tiim bàmmeelu amari ndaa gént gi damaa yóbbu ma tiim lii ma la wax amagul ñaari weer de lii matul ñaari weer may jaaxle rek may jaaxle waaye bi ma demee ci bàmmeelu amari ndaa ba ma demee ci bàmmeelu ma amari ndaa billaahi lasi laa ilaha illa hu billaahi lasi laa ilaha damaa këpp sama kanam gi damaa këpp sama kanam ci banq lañ bi ci banq lañ bi ak xor yi ak xor yi ba bi ma siggee ba bi ma siggee sama kanam dafa lañ ma ne ko sama maam ma ne ko maam dimbali ma dimbali ma laa ilaha illa sëñ loolu laa wax laa wax ko maam maa ngi gàkk ci mbirum canaba maa ngi gàkk ci mbirum canaba dimbali ma dimbali ma ci sa mbaax ci sa mbaax ci ëllëg sa rek wuy wa toj wuy wa toj keroog laa xam ni ko Amari Ndaak. keroog laa xam ni maam Amari Ndaak Seck. koo ko tëkkaleel. koo ko tëkkaleel. ay dafa am am ku baax. El Hadj Mor dafa am ku baax. fekk ma doon jàmbat yu ma xaw naqari ci dëkk bi. ma doon jàmbat lu ma naqari ci dëkk bi. mu ne ma bu leen yàkkamti. mu ne ma bu leen yàkkamti. lépp góor googu ngeen fa am. lépp góor googu ngeen fa am. dina ko régleel boppam. dina ko régleel boppam. mu ne ma dégg ma fi woon ci temps yële. mu ne ma dégg ma fi woon ci temps yële. ngeen di yeew di tere jakartaay ak yooyu. ngeen di yeew di tere jakartaay ankay. naan bu ci jigéen toog. bu ci jigéen toog. buñ fi jaar buñ fi jaar. ma ne ko ankay ma ne ko ankay. mu ne ma ba góor gi jógee. mu ne ma ba góor gi jógee. dafay jëlee jakarta jële na fi jakarta yëpp. te kenn ci yéen. te kenn ci yéen. yëgul ni jëlee na ko fi yëgul ni jëlee na ko fi. ma ko ah, nu mu ko fi jëlee. ma ne ko nu mu ko fi jëlee. mu ne ma cag cag yi la indi. mu ne ma cag cag yi la indi. mu man li ñu bëgg. mu man li ñu bëgg. te la ñuy bañ nekku te la ñuy bañ nekku ca waaye dëgg la. kon ki nu am dina régler solution. ki nu am muy maam Omar ak sekk dina régler solution. li koy gaawal nag Seck. li koy gaawal nag mooy. ku mel ni yow ku mel ni yow. waa xam nga njiit. nee na njiit. olof Ndiaye dañuy xeej. olof Ndiaye nee na xeej. bu cat la duggee. bu cat la duggee. bul yàkkamti bul yàkkamti. lu ñëwaat lu ñëwaat ca xeej ba rek. day dugg day jàll. waaye bu ba caag mu ni leen. téema leen a wax. téema leen a wax. banque boo xam ni. banque boo xam ni. amul samedi. amul samedi. amul dimanche. amul dimanche. amul guddi. amul guddi. du tëj benn yoon benn yoon. ñu ni ko gaawal mu ni ko gaawal. mu ni alxinaaw. mu ni alxinaaw. doylu doylu. alxinaaw. alxinaaw. kanzun la yufna. kanzun la yufna. yonent bi ni leen doylu. sang bi ni leen doylu. am am bi nga xam ni. mooy am am bi nga xam ni. ñàkk du ci topp ñàkk moom du ci topp. sa waajur dafa doylu woon sa waajur maam moo taal sekk ku doylu woon. moo taxoon bi tubaab bi muusee ba mu catiku. moo tax bi tubaab bi muusee ba mu catiku. Sénégal xiif. Sénégal xiif. mu defe ne ku mu ger ci lekk. mu defe ne ku mu ger ci lekk. ger la ci dund. ger la ci dund. jot ci yow. jot ci yow. ba mu ñëwee ci sa waajur. ba mu ñëwee ci sa waajur yi. daf ko ni. daf ko ni. ci lekk ya rek ca lekk ya. lekk ya. ya nga xam ne dafa teew. ya nga xam ne daa teew. ñu mën koo jëfandikoo ñu mën koo jëfandikoo. ko tegee ba pare. bañ ko tegee ba noppi. dañu leen damaa woor. dañu leen damaa woor. waaw ku woor day. te woor nag pap te woor nag. dafa am beneen baatin bu ci nekkaat. ne daa am baatin bu ci nekk. xam nga woor. woor du rek nekk ci weeru koor. du nekk ci weeru koor. tere sa bopp lekk tere sa bopp lekk. tere sa bopp naan sa bopp naan. woor. woor mooy lii nga xam ne yàlla da koo bañ. mooy li yàlla bañ. man um naa ci koor. um naa ci koor. moo tax keroog bu nekkul woon ci koor yi. moo tax keroog bu nekkul woon ci koor. ci saalu gouverneur. ci saalu gouverneur. dafa woor daa woor. du ko lekk. gouverneur ni gouverneur ni comme sëñ bi lekkul. comme sëñ bi lekkul. dafa woor daa woor. nañ ko préparé. nañ ko préparé yu mu yóbbaale. naa ay ndogo yu mu yóbbaale. mu ni bi ma jógee ba léegi. mu ni bi ma jógee ba léegi. nee leen ko maa ngi romb. nee leen ko maa ngi romb. ñu xiif ñu xiif. ci ndakaaru ci ndakaaru. ñuy rang dund ñuy rang dund. na ko dimbale na ko dimbale. man samay sàq fees man samay sàq fees na. kooku nag sekk. kooku nag sekk. boo toogee fii ni mooy sa référence. boo toogee ni mooy sa référence. nga wax li nga wax fii. nga wax li nga wax fii. jëf ji melaat noonu. jëf ji melaat ni ñagas ñagas mënta ñàkk. ah ñagas ñagas te mënta ñàkk. waaye wa shaawirhum fil amri. waaye fa tabarakallah. tekki ko yonent bi léeg-léeg da daan lewet. yonent bi léeg-léeg da daan lewet. doom léeg-léeg da daan lewet. doom léeg-léeg da daan lewet. léeg-léeg mu ni jàgg. léeg-léeg mu ni jàgg. waaye lépp itam. waaye lépp nag ci waxtaan lay ci diisoo ak waxtaan rek. diisoo ak waxtaan. waxoon naa fii nii. bàyyi Seexu Canaba ne waxoon naa fii nii. bu kenn jaaxle. bu kenn jaaxle. waxtu woo dikkee waxtu woo dikkee. ubbi naa bunt ubbi naa bunt yi. lu jaaxal nit lu jaaxal nit ñi. nan ca wax nan ca wax. ba teg ko fa ba teg ko fañ ko war a teg. képp képp. lu jaaxal nit lu jaaxal nit jërëjëf Seck lewet gi ngay wax itam lewet gi nag. ci sa bopp ci sa bopp. seedal nañ la ko seedal nañ la ko. ñun ñëpp xam nañ ni ñun ñëpp xam nañ ni. Baye kenn ragalu la. Baye Assane kenn ragalu mais kenn yabu la nag. waaye kenn yabu la. Mm-hmm. Baye Assane kenn ragalu la. Baye Assane kenn ragalu ndax da ngaa lewet. ndax da lewet. danga baax da baax. mais kenn yabu la nag. waaye nag kenn yabu la. kenn yabu kenn yabu la. ndax ñun li nu ragal. ndax ñun li nu ragal nag. ñun ñii ñun taalibe canab ñun taalibe canab li ñu ragal lu muy wege doomu xam lu muy wege doomu aadama yàlla ak yonent bi yàlla ak yonent bi te xam na ni mi ngi te xam na ni mi ngi ci yow kon nag kilifa nga goo xam ne kon kilifa nga xam ne lewet nga ba nu ñime la lewet nga ban ñime la waaye ñàkkoo fayda ba ñu yab waaye ñàkkoo fayda ba ñu yab la nag nag lan lay loolu la lay damoo ci loolu la ñuy damoo ci yow yàlla na yàlla yàggal loolu nee na bàyyi asane commencé naa commencé naa xabru góor gu mag nee na commencé na nag xabru mam Momar Talla Seck jox naa ko boroom xam-xam yi. jox naa ko boroom xam-xam yi. ma ñëw nañu natt ko xool ko seet ko. ñëw nañ ba natt ko ba seet ko. wax nañu ni. wax nañu ni. mën nañ ko defar ci fanweeri million. war nañ koo mën a tabaxe ci fanweeri million. ak juróom ak juróom. ba juboo naa ci ak ñoom ba juboo naa ci ak ñoom. Maajooje mii. Serigne Maajooje mii. jox naa ko barki démb dix millions. jox naa ko barki démb fukki million ni ko ni ko def ko ci compte Amary Ndaak. ni ko def ko ci compte maam Amary Ndaak. maa ubbi compte Amary Ndaak goo xam ne. maa ubbi compte maam Amary Ndaak goo xam ne. bu ñu ko ubbee ba ba def ca teraanga ya. bu ñu ci ubbee ba def ca teraanga ya. du ma ca sañ a dem. du ma ca sañ a dem nag. Pape Gueye mii du ca sañ a dem. Pape Gueye mii du ca sañ a dem. ñi nga xam ne moom la jox projet ba ñuy liggéey. ñi nga xam ne nag ñoom lañ jox projet ba ñuy liggéey. ñoom ñooy dem. ñoom ñoo cay sañ a dem. jël lañ ci war a jël. jël lañ ci war a jël. dem liggéey dem liggéey. bind kayit wa ni ma jël nañ ca nangam bind kayit wa ni ma jël nañ ca nangam. noonu laa taxawee compte bi noonu laa taxawale compte bi. compte ba itam. compte bi yéen nag. def naa ca dix millions def naa ci fukki millions. nee naa maa jooja. nee naa maa fukki millions yi ci des. fukki millions teg ko nee. teg ko nee. su taalibe yi defee. su taalibe yi defee. nu xam ne def nañu. nu xam ne def nañu. su fekkee defuñu. bu nu deful it. nu dikk dolli ko ci. nu ciy dolli rek. te sol sunu daal te sol sunu daal ñëpp ay def. waaw waaye te eh, xabru boobu. waaye xabru bi daal. laaj naa ca ku gëm kër gi. laaj naa ci ku gëm kër gi. ab junni. ab junni. benn benn junni. taalibe bu ne junni. la ca des la ca des. ñu bàyyi koog man ñu bàyyi koog man nag. dana jeex sax dana jeex de. ndax taalibe yi dañoo yaatu. ndax taalibe yi tabarkalla dañoo yaatu nag. su fekkente ni xabru bi àgg na. bu xabru bi àggee nag. te gone yu nangu. te gone yu nangu. ma jàll ci xëbru yi ci des. ma jàll nag ci xëbru yi ci des yëpp. Ah, suñ ma mayul ndigal. an dañ la ko may sax yaa moom lépp yaa joxe ndigal li yaa yor ndigal li. xëbru bu àgg. xëbru rek ma song benn. Ah, bàyyi bàmba nee na junnee ma ngi. joxal kii ah joxal maa ngi. junni bàyyi Amadou Bouba Guèye. ma maanaam del waxaale góor junni. jigéen téem juróomi téeméer. loolu laa bind. moo tax maa juróomi téeméer. mu ne. bàyyi xalifa bi nee na góor góor taalibe yëpp góor junni jigéen juróomi téeméer. am na lu fi nekk nag ci loolu. te tane na góor junni jigéen juróomi téeméer. waaw nit ñi. ma maanaam nit ñi ah am nit ñi. nee na nit ñi. bi ma ko déyee bi ma ko déyee ak léegi. ma ko déyee ak léegi. nit ñi indi na ñaar téeméeri bari ko. nit ñi nag indi na ñaar téeméeri bari ko nag. ñaar téeméeri bërigo yooyu ñaar téeméeri bërigo yooyu damaa bëgg ñu def ko xaalis damaa bëgg ñu def ko xaalis ndax damaa def ñii liggéey ndax damaa bëgg ñii liggéey dañ koy coffre benn dañ dañ koy dañ koy coffre benn wala su fekkee dañuy am brique wala bu dee am brique yi ci yi ci usine ba lay doon yi ci usine ba lay doon waaye bu neexee yàlla daal waaye bu neexee yàlla daal su ma àggale bu mu ci doon bu mu ci doon ma toxu ca bee ma toxu ca ba ca des toxu ca bee toxu ca bee yàlla na nga defar yëpp ba ñëpp xabru barab bi mag yëpp jeex yàlla na yàlla mottali yéene yi yàlla na yàlla mottali yéene yi barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam kon tàllal leen loxo ku amul woon na yaa ah, ah, sama yaay yaa koddu ñu ngi ma nga ne bokk ci jotaay bi mi ngi ñëw nga waaw yaa koddu ñu doomu bàyyi tafsir ma awa ñu ngi mënta waaw mi ngi noonu mi ngi lay ñaanal mi ngi ziar yal ko bokk waaw defe naa min nee naa ñun suñu taxawaay yëpp yàlla ak ñooma mënuñu dara xamuñu dara waaye ànd ak suñuy waajur di liggéey di liggéey ba tey fu ñu taxaw ci diine ji. ngor gërëm ngor gërëm nu diine ji gërëm nu. sëñ bi lépp yàlla ak ñoom pas pas des koy doon. jeex na bàyyi séminaire pas pas dañ koy doon. pas dañ koy doon. ak sunu yaay yi àndal ñëpp nag. tànk soo dëggee ñoo bëgguñoo li mu yaatu. Hmm. yal na sama borom yàlla barkeel. amiin barke salaatul fatiha. jazakallahu xayran yaa soo dëggee waaw. dama bëgg nga